ci rond point station bi jamono yi weesu nii la meloon ci yàqute kanaal bi nga xam ne moo nekk ci digg-télé bi lépp yàqu oto yi di fi am ay gàllankoor embouteillage yu métti métti di fi am loole nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di chauffeur si àddu woon ci waaye kilifa yi mu mel ni dañ leen a tànqamlu tey jii nag ñu xëy dajale mbooleem li nga xam ne moom lañ am ànd kook yenn commerçant yi nga xam ne ñoo nekk ci wet gi liggéey ay kubéer yoo xam ne moom la ñuy tëjee canal bi ngir jafe-jafe ñu mën koy saafara laatay màggal gi moo tax ñu jaayante fas yéene volontaire defar ko ngir bu màggal gi ñëwee donte dañ koy defar ëllëg ñun ñu def ci lii rek ba bu kenn bañ cee gaañu kenn bañ cee loru bañ a gàllankoor dem bi ak dikk bi pour ñi gan ñi nga xam ne dañuy ñëw di màggal si lu duñu am benn jafe-jafe ci diggante bi. ah xam nga lii boo xoolee lu mat weer ci gannaaw mën naa ne dana woon nañ ko sunu kilifa yi wala autorité yi mais booba ba léegi xaar nañ leen ci ñoom it ñëwunu bañ demee dem ñëw ñu ñu xam ne lii bu fi fekkee màggal gi dina gën a gàllankoor dem bi ak dikk bi léegi ñun ñu ne woon nañ jaayante xool loo xamante ni si mën nañ ko rek ñu def ko ci mën nañ ne commerçant bi di Abdou Gueye mën naa am sax bëggul ku tuddoon turam waaye comme liggéeyal Serigne Touba la moom te lu ci waaye def lu ne doo ci perte moom moo ñëw dooleel ñu lu gën a bari moom moo nu dooleel dooleel ñu bu baax a baax dooleel gi nag moom mooy daa ñëw ànd ak ñun liggéey bi boo xoolee mi ngi ci biir mbooloom moo jël alalam def ci ndaxte giri yi ngay gis nii bi mu ko waxee waa bi mu koy defar financé na ci lu mat cent 300000 moom giri yi nii ñu ci def moson yi ñëw mu jënd bagage yi ñu nit ñu daal di ànd ak moom li ñu man suñ doole ak suñ alal lu muy tuuti tuuti ñu ñëw mu jàppale ñu ci. chauffeur yi nga xam ne ñoo nekkee fii ci gaar bu ndaw rafetlu wuñ yi nga xam ne ñoo waroon defar barab bii kilifa moom li ñu leen di wax mooy lii moom kilifa yi mën naa ne ñëpp gis nañ ko wala bu ko ñëpp gisutut ñu ko ñu gën a bari gis nañ ko ndax yàgg na fi torop chaque année nii lay mel daaw fee la amoon am ñun ñoo ko defar kenn fekkuñu ci wala seex Bara Laat mii nekk guy mbind moo ñu ci fekkoon ñëw dimbale ñu ci ak alalam boobaak léegi ñun kenn jaajëfaluñ ci kenn indiwut doole mi jàppale ñu ci waaye ñun nit ñi dañoo taxul nuy def sëriñ bi moom moo tax nuy def. sëriñ Cheikh Bara Laat at mu jot su bërëb bi yàqoo bu ko chauffeur yi defar dana leen jàppale ci liggéey bi bi mu xëyee yëg nañ ñu koy defaraat ci la déplacé wu ñëw yëkkati ak ñaqam jox leen jàppale leen ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def. bërëb bi wax dëgg yàlla yàqu na daaw jéeg ñu defar ko biñ defaree bay bëgg a yàggal Ageroute ñëw fekk ñu ci yàggale ko ren jii bi nawet bi commencé ba nëgën mu ngi yàqu te nii lay yàqoo at mu jot euh, loolu moo waral comme ñun xam nañ ne lu war ci dëkk bi ñun dañoo jàpp ni ñun euh, ñii la gën a war te bu dul woon yoon wi li mu dem guy mbind itam liñ ci war a def danañu ko def incha allah euh, <clears throat> loolu moo waral. saa bu ñu koy euh, saa bu yàqoo ñu ñëw fi jël suñu alal jox leen ànd ak coxeur yi fi nekk ànd ak gone yu góor yi fi nekk ànd ak ñëpp ànd ak bokki taalibe yi fi nekk ñu defaraat ko ba mu baax ndax feneen fu mu doon fudul fii itam bu defoon nii nii leen ca war a nii leen ca war a doxee ndax nun lépp luy tax dëkk bee baax rek loolu suñu alal du ko fekkee incha allah loolu moo waral suñu taxawaay fii tey fii ñoo ngi ci ñetti at yoo xam ne at mu jot bu yàqoo ñun ñii ñoo koy defar ci suñu alali bopp loolu nag euh, sëriñ bi rek a tax ñu di ko def keneen ñu di ko def euh, ndax xam nañ ni feneen fu yàqu woon ci dëkk bi itam ñun ñu noo ko war def waaye nag guy mbind fii mooy fi ñu mën a duggee ci dëkk bi saa bu tawee duñ mën a fexe bu dugg ci dëkk bi loolu tax ñu summeeku fas yéene defar ko ba ñëpp mën fee jaar. Assalaamy TV ñu di leen gërëm di leen sant yéen ñi nga xam ne lu mel nii fu mu xewee di ngeen ko wax ba nga xam ne ñi ca nekkoon xam ne ñi ngi ci li war a nekk ñi ci nekkutu ñi ca jàpp ñi ci jàpput itam xam ne lii war nañ cee jàpp ndax mboolem ñi wër fii daanaka mën nañ ñi ci ëpp ñëw ci liggéey bi mbaa seetaan la ñuy def wante euh, taxawaay ba ca war ñun xam nañ ñun ñii la war lu ci nit def itam jàpp nañ ñun nga ko defal. fii ci rond point station gare bu ndaw bi soriwul dara jumaay Tuubaa ji lii buñ ko seetaanoon ba fii ak màggal dana jéggi dayoo ndax dem beeg dikk bi boobaa dana am ay gàllankoor.